ci ba wax ci sëñ Abdou Lahad kooku di kan Thierno Moussa Sow borom cer Thierno Moussa Sow nga xam na que euh, pël bu saf sàpp bi leen indeeti ngeen naan pël bi kuy waru pël moo tax am na wax yoo xam ne que tegewul da ngay dégg ko naan la euh, koo xam dara nekkul Dakar kii da dëkkul Dakar nga dégg ko naan la ñu ñaa nga àll ba kii da àll ba dëkk nga dégg kon ku naan la Dakar kenn dëkku fi moo am na wax yoo xam ne que ay waxu ku daanu ci sareet la ku man li ngay def boo dëkkee Almadi man nga ko boo dëkkee bayaax man nga ko boo dëkkee Touba man nga ko boo dëkkee Somone man nga ko ku mënul li ngay def nag bu la neexee dëkkal kiri kara sax mais mënoo li def wala boog man nga maçon man nga way man nga musique man nga laneen daal kenn ku nekk lim mën na ci am rek Thierno Moussa Sow borom ba yàq pour bu saf-sap bi mais na def looy nuyoog àdduna wërngal képp bi lay seetaan ci Tektal TV sa télé ak émission Tektal sa émission ak sa bu rafet macha allah. jërëjëf Cheikh asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar fi ñu leen daan nuyoo ci seen tele Tektal TV. Hmm. di nuyu waa Bayax di nuyu waa Sénégal waaye sama nuyoo bi maa ngi koy jagleel sama xalifa sama seriñ sëriñ Cheikh Khady Ba mu sëriñ Abdoul Ahad Mbacke ak njabootu sëriñ Touba bi yàlla na fi yàgg te njabootam ak mbokki taali bi ma ko bokkal yëpp ak képp fu nit jébbalu hmm. di nuyu kilifa diine yëpp euh, sama maam Cheikh Mahamadou Aïssata Ba xaalifa Guettardo euh, kër Cheikh Aljuma Ba di nuyu Serigne Babacar Sy xaalifa kër Maam Alaaji si di nuyu sunu xaalifa bu baax bëlee ci Medina Baye boroom ngan gi ñu ganale barki dem siyaare bu rëy bi mu ñu may ci jëmm boppam bu tëdd boobu tedd boobu ci bërëbu waajuram bu tedd boobu a kaamil alxuraan bi ñu fa jagleel ñu ngi leen di nuy di nuyu waa Laayeen bàyyiwuñu kenn. Cheikh. waaw. Euh, maa ngi lay sant di la gërëm indi nga ma fu ma miin indi nga ma ci lu ma xam. Mm-hmm. yaa ngi ma jëmale ci lu ma lu ma sawar ah. jërëjëf. ok mm-hmm. ok dama lay présenté ba nitu àll nag loolu la de euh, ñeenti persident yi ñam yëpp ci àll lañ jógee. ci àll lañ jógee. université Cheikh Anta Diop Cheikh Anta mi ñu ko tuddee mu nga dëkk dëkk bi ñuy wax caytu. Mm-hmm. ñi nga gën a yaakaar ci équipe nationale ay nit lañ sama xarit Youssou Ndour ah. buñ daan waxtaan dama koy wax ne hmm. man kaw kaw laa ba mujj Mara bu ñuy wax Mara jee danaan man sax waa Jurbel laa hmm. parce que tur yu bon yi ngay dégg yëpp du am ci village hmm. te yow mi boo gisee ma respecté la mooy village nga jànge boo fa juddoo yilit xam na jànge ngaay mexe waaw daara sëñ Modou Diop ak Cheikhouna Diop jàngal ñu jërëjëf nekk ca daara ja waaw bon àll moom ressource yëpp ci la nekk non bu déggee sax ma naan mooy danga bëgg dem ci àll bi wuti garab yónnee woo dem dama fier loolu waaw ñu mos ñu dem Casamance dugg ci àll bi daf fay fan ak yónnee daal dama fier ci loolu macha allah loolu loolu kon nag bi daal bi daal maire foofu bu dee mais bat bi may waxaat nag pël bu saf bi sap euh, nangul nañ la ko nangul nga ko aha jeex na kon bi daal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa tamit ba di neexul ki wax ci saal bi mu noppi ki dox ci mbedd bi mu dugg ci biir tegtal mooy daw

602 01 01 77 602 01 01 602 nag boo koy bindloo ku déggul daaj te mu bindal la 620 mais da nga def 77 pare def 6 ak 0 ak 2 boo ko defee pare nga def 01 01 numéro bi boo jotul Thierno Moussa di nga jop Alaaji Sow rakkam euh, ak waa ak yi rakkam yëpp daal yëpp mooy li may wax rek boo dem ci pharmacie bi di seet Pierrot boo ko fekkul la nga bëgg dina am ci pharmacie bi incha allah kon jërul nga fay fekk Thierno Moussa Sow jot nga ko jotoo ko incha allah moom dina wuti garab indi garab yi am qualité yu baax yu jaar yoon indi la ko tegal la ko fi ak nin ko utiliser yëpp ba soob yàlla di am jàmm Thierno Moussa Sow euh, li ñu bëgg njëkk waxtaane tey mooy fii senegal da ngay gis cat sonal nit ñi ba léeg-léeg nit def toj toj tam ñu jiñ ko cat. danga seen koo xam ne que day génn awraam wane euh, ñëkk moom ma koy wane xëy na la mu doon def privé la ñu ci kawam moom gënul daal parce que nit ak confiance am nay jëkkër ak jabar yu ne ñu ci ami problème loolu beneen mbir la am na ñoo xam ne que tamit dañ leen di bëgg a yàq wane seen vidéo beneen mbir la ku cet jàpp ak anam bu mu ko mën di jàppee rek ak fay coow yooyu loo ci mën ba kenn du ci waxati euh, dafa am yoo xamante ne moom sañu ñu cee wax mhm. muy wàllu vidéo yi ñu ngi ñaanal ñu koy def. Mhm. Eh, yàlla na leen yàlla jàppale moo xam fi gën mu teg leen ko. Mhm. moo xam ki ko wane moo xam ki ko siiwal moo xam keneen. Mhm. Eh, ñoom ñëpp kii siiwal vidéo boobu yow ci dëkk bi nga bokk. ci ñi fi gën fami ci nga bokk. Eh, jàppal loolu. yow miy joxe vidéo bi ñi ngay ki ngay joxe vidéo am gënu la famille ci famille bu baax nga bokk. ki nga wane vidéo am ko ci famille bu baax la bokk. te yéen ñaar ñëpp xam-xam bi leen yàlla may hmm. mën ngeen cee deflante loo xam ne lu rafet la hmm. ndax li ma ci wax lenn rek mooy soo wanee vidéo nit ci lu bon nga hmm. yeewu suba ñu tàgge la ko da am lu la métti da ngay am man li may yërëm mooy ki nga wanee vidéo muy def lu ñaaw nga yeewu mu ñu ñu tàgge la ko rek man loolu rek laa lay ñaan ban réaction ngay am li ci des ngay rëccu waaw li ci des mooy vidéo bi bu rëccee léegi ba ilaa yow mi diin nit ki ak setam ak setam ay blessure lay doon xam naa ne yow mi koy wonee ci famille bu baax nga bokk famille bu bëri yërmande ñu bëri sutura xëy na ñu tooñ la wala naxar jàpp la wala doxinu jamono wala nga bëgg yeete. Mhm. nga bëgg defar moo tax nga koy def may lay ñaan. nga lu mel ci barke say waajur. Mhm. ci barke alxuraan ak sa jëmm bu tedd boobu ndax doomu la dafa tedd euh, euh, suturaal leen rek. Mhm. mën nga ko. dara force wala pour nga def ko. yërëm leen. nga suturaal leen yal na la yàlla suturaal ak koo mënti doon ak foo mënti nekk yal na la yàlla sàmm te yàlla bul ci benn lor bàyyi ko jëm ci yow hmm. eh, maa ngi lay ñaan ngir yàlla nga jéggal say mbokk jërëjëf di leen wax daal comme ci man di doon ngay am yër yërmande te bi tamit nga calculer ne bul xeexee nit ki nga yàqal ko parfois du tax maanaam moom mooy yor poste bii boo ko yàqalee est-ce que wóor na la di nga jot ci poste ba boo ko jotee est-ce que di ci yàgg boo yëpp ngi ci biir nani rafetal yéene yi mais fi may waxee en manière général ku def toj-toj bu rëy soit juum na wala coow topp na ko mu bëgg a fay coow li avant cat. jërëjëf. waaw mën nga fay coow. dafa bari ay coow nag. kii dañ ko woo yoon. Mhm. bugg fa dem. bugg fa dem. kii dafa yëg ne am na lu mu yor loo xam bu explosé ci loxoom adunam tàkk. Mhm. kii dafa am ko xam moo ko war a woo su ko wooyee dina wuy ji bu wuy jee ñëpp yëg ko. mu bëgg tëj gémmiñam coow bu ñu xas ñu coow ba pare nag coow nañ ko ba pare bu fayee it du tee mu des ci xel yi waaye bañ coow am nag loolu la nit ñiy def mhm. loolu nag dafa am ay mesures yu ci nit ki war a jël Cheikh mhm. li ñu war a njëkk jëf ñun waa réew mi mooy mhm. ñu bëggante bëggante yërmante soppante bante ak jàppante Cheikh booy xeex ak nit ba nga dégg faatu na bu fekkee da nga ko waxoon lu ñaaw bés boobu da ngay bëgg retirer wax ji doo ko mën a retirer. moo xam lu ko mën a rey te it gisuma fi ku xamante ne war na deete yàlla reyu ko ci yéen ñi may seetaan. Mm-hmm. gisuma ci yéen ko xamante ne war na am benn góom boo xamante ne dafay dafay nàcc ci doomam walla setam doo bon nag nañ ñi maa ngi ñaan rek motuma motu leen kenn motul te diggante bi ñuy nekk ci àdduna bi mooy yàggut. dafa yàggul koy xeexal fu ne mën na mën ngay xeex ak nit ki tey mu lay tooñ di la merloo nga koy ngay xeex ak moom fekk ñaari at la dese bon soo ko muñalee rek ñaari at yi mot mu dem mu bàyyi la fi mën nga fekk sax yow mi muy tooñ ngay mer ñaari at nga dese waaye daal yéen ñëpp yàlla na ngeen gudd fante weer te balantaax jërëjëf Cheikh mais dama lay laaj mën ngaa fay coow wala mënoo wallaay Cheikh mën naa fa mën naa tere dossier dem dem yoon barki Serigne Abdoulaye mën naa ko kon famille yi am ay problème di wallaay Cheikh ah. mën naa tere dossier dem yoon dossier bu dem ba am plainte ñu war ko woo mun naa ko tëj kenn dootu ko wuy ji man Thierno Moussa. ku dëgër bopp bëgg ko atte nag wala. loolu du ci am. du dëgër bopp boobu du ci am. gis dëgër bopp boobu moo ci dul am sa xel du ci nekk doo ci jóg doo ko laal. doo ko laal waaw. Hmm. mais ku nekk ci kaso mënuloo ko dara. ku nekk ci kaso dafa may risque. ay tant que nekkul ñu koy woo jarul jox garab yi génne nit boo ko joxee li muy def mooy feebar dem pavillon génn kaso bi waaye ñibbi wut. <laughs> dégg ngeen ko. waaw Cheikh <laughs> ñun li ñu xam mooy nit ki bu nekkee dafa dafa dafa am mandat d'arrêt ñu arrêté ko ñu mu ne nekk mandat dépôt kenn woowagu ko nga dem yónnee ko garab boo xamante ne du am 72 heures ci kii bi boo ko jotee suba mu feebar ñu yóbbu ko pavillon libéré wut mun na fa jaar sax faatu libéré wut te li may wax nii ku xam mbir moo koy wax li gën mooy nga bàyyi bañ ne waa ji dinañ ko woo tribunal si nangam buñ ko wootee mu ñaan renvoi nga yónnee avocat mu ñaan renvoi léegi jàppal nañ la le 26 lañ koy atte nga def li ngay def tey 26 mu taxaw ñu libéré. ah loolu mooy mbir mi. loolu mooy mbir mi. waaw mais di ko jox muy lekk ak naan ak bul def loolu de. waaw bul def loolu xam nga jëm rek. yi am na fi garab bu ne ci àll bi. Mhm. bu dee nit ku ne ci kaso bi boo koy wuti. Mhm. da ngay am comme mag nga da wut ndaw. da ngay wut waaw xale boo xam ne toll na ci. fukki at ak nangam. Mhm. jàpp fukki at ak juróom-benn. nga won ko garab bi nga ne ko garab bi laa lay yónni suba. Mhm. léegi nag moom buy jëli garab bi kenn war koo gis. kenn waru koo gis. bu bu bu séenee garab bi rek ba muy jóge ci garab bay. jógewaat secteur boobu bu ci këram ba garab. non bu demee ba àgg secteur bi mu war a jëli garab yaa ngi ni ci àll bi garab baa nga fële. Ah. boo jógee di summeeku pour jëli garab bi kenn waru laa gis ba nga jëli garab bi mm. xale bu summeekoo dem wuti garab bi ni mu ko wutee da koy indi mm. kenn du ko xaaj moo tax du ci wut lu bëri mm. da ciy wut looloo loo xamante ne boo ko defoon ci yére bii mu nëbb ko nga ñaw ko mu nekk fi mu nekk fi bi ba nga koy ñawaale kol garab bi ci biir da koy ñaw ba pare kol ko bu demee dañ koy xolli teppi xol bi détini bi bu julli gee jotee timis mu xool ko bu yeewoo fajar muy mu xool ko bu ko defee ñetti fan mu taseeg buy wuy ji buy àgg siis bi di ko libéré buy àgg siis bi di ko libéré waay barke rasulaay dégg ngeen ko Thierno Moussa Sow ne nee na li mu wax euh, xale bi bu amee garab gi ba wut ko ba pare wuru ci loo xam ne dañ koy xaaj day dugg ci biir yére bi mu fexe mu gis ko julli timis ak gée ah. waaw su bu de julli timis ak suba. ak suba bu jullee tey timis gis garab bi. suba mu julli suba mu gis ko gannaaw suba mu julliwaat timis beneen suba sa mu taseek ak muy wuy ji day du ñibbisi ci kaso bi. buy ñëw jël jël yërëm ñi kooku dafay pare. mais léegi xeetu juge ak magistrat ak ñoom ñi àtte nit ñi nga xam tamit parfois gars yi dañuy jët wut si leen gars yi takk wut si leen suur wut si leen sang wut si leen ah léeg tamit ñoom it ñu soxla ay ñaan pour am seen kaaraange bopp ndax seen njaboot tamit soxla na leen kooku tamit loo ko mënal. xam nga bu fekkente ne da ngay jàkkaarloog ay nit di leen àtte. Mm-hmm. yow xam nga fi am na fi garab yoo xamante ne xëy jàkkaarloog borom rek mu am lu muy tiit baaxul. Ah. mais munoo tere nit ki li tax boo gisee sax juge yi am sens tuuti mooy. Mhm. li gars yi jóge genre euh, prison ñëw direct. Ah, mais bu fekkoon tey nit ñi dañuy jóge ci àll bi di di jëm direct ci tribunal bi bés bu nga gis procureur bu dee wala juge bu dee. billaahi laa la wax nii parce que dafa am yoo xamante ne. Mhm. nit ñi dañ ko amee. Mhm. kenn du ko xool. gis nga seex li ci des mooy damay wax sama mbokki juge yi liggéey ci tribunal. bu leen di am whatsapp ci téléphone yi nit ñi di am ak yéen bu leen am whatsapp bu leen jël whatsapp non non jox dama ne képp kuy atte nit ñi ah. non liberté bi mu leer seen intérêt la <laughs> bu ngeen dof dofloo geen di jël di lire whatsapp vendredi da ngeen di dugg ci lu ngeen xamul ah. dafa am garab yoo xam ne gars yi dañ koy jël buñ ko jëlee comme mënuñu excité leen dañ koy photo jël ku yor sa numéro mu photo ko def ko envoyé le message bi sodi ci fajar boo ko gisee vendredi doo ko defaat. même ci whatsapp bi. barke alxuraan moom la ñuy def. xam nga léegi gars bu ñuy dugg dama lay seex lu eh. garaaw laa lay wax. non Afrique la nekk gis nga liggéey. waaw kenn mënul mucc mu àgg ci yow. léegi ma jox la exemple. léegi bu ma bokkee ci benn daayira li la siyaar si ngay kilifa diini. Mm-hmm. ma lay siyaar si yoruma ñaar fukk keneen ñëw na ma damay bokk ci daayira bi. mu jël loo xam baaxul ci kilifa mu def ko ci téere kaamil bi te kilifa kaamil rek la bëgg. te nitu yàlla la sunu borom ci diine rek lay dox ñu daal di bokk ci daayira ram ba jox ko kaamil bi mu ubbi ci même paas bi lay yem xool ko loolu day am li ci des mooy parfum yi ci lay gars yi ñëw ubbi dugal ci liñ ciy dugal moo tax boo nekkee ci mbooloo nit di parfum nga ne ko baax na <laughs> baax na yaa ngi dégg bu dee ci wàllu sëriñ. Ah. bu buggee def lu bon da ngay yeewu am capacité. am capacité boo xamante ne léegi da ngay chercher waa ji fu mu nekk da xam ay nitam. Mm-hmm. xam li ñu bëgg nga xam lu ñu bëgg ci moom nga jaar ci ñoom àgg fa ngay àgg dagg tubéyam te du ko yëg. waaw mais li mu bëgg xam mooy juge bi moom bu amul whatsapp bu amee snap wala telegram ak yooyu dem. am yëpp danger la. terewuma leen ko dama leen cee dimbali. da leen ci dimbali. man awma lu ma leen tere. Mm-hmm. ñi ma ko séqal xam nañ ko. mais bu amoo bu amee whatsapp pare jox benn. xam nga whatsapp li mu gën a garaaw mooy ko a liir xoolal telegram ak yooyu non yow loolu kenn war la ko liiral. dama dul yor whatsapp boo xamante ne sama ay nit ñi dañ ciy am accès. Uh-huh. damay am téléphone boo xam ne ñi may liggéeyandoo laa ciy jël. Uh-huh. ñi may ñi nga xamante ne buñ la jaayee nag. non ñooñu xëy na waaw mën nañ la ah, jaay mais war nga am présidence boo xamante ne. Uh-huh. xam nga instant yi ñu nii. boo amul yenn capacité gàllaaj yi muy man muy yow mu coo ci doomu aadama yi. <laughs> li ñu may sens nag. mooy ñenn ñi amuñu yenn xam-xam yi. Mhm. xam nga koo xamante ne dafa ëmb. Mhm. wujjam bëggul mu am doom. Mhm. am na possibilité pour kii du fi am doom. mais am na possibilité bañ euh, awul possibilité am ci tuyaaba. possibilité bakkaar ak rey ñoo fi nekk. léegi nag dafa am ñaari sens nit ñi am nañu xolu rey mais amuñu lu ñu reyee amuñu lu ñu fayee amuñu ñoo am na ñoo xamante ne jaralu leen ko. mais su fekkente ne yàq rek. Hmm. nit ki boo ko sible bëgg ko yàq mun la rëcc. mun la rëcc lim la mën a rëccee rek non amul. mooy mbirum yàlla daal non yàlla rek ak mu nekk koo xam ne loolu root jëm ci moom mu tuuru ci yow. mais su dul loolu mënul rëcc. mais léegi li mu bëgg a xam mooy yàlla yàlla musal ñëpp képp kuy dugg ci kaso ku fa nekk ak yëpp yàlla génne laa ak jàmm mais euh, xam nga tamit bu dee ci tribunal bi fa la ñuy àttee. Mhm. mais fi ne defee escale nga ne loolu mooy avantage bi. kon ñooñ gendarme yooyu di encaissé ñooñu wala policiers yi nga xam ne ñoo ñooy nekk ak ñoom ba war leen jël yóbbu leen ñu dem ne gisi juge beeg yooyu ñu atte leen tamit ban gàllaaj lan war a yor xam nga ñaare ku ñuy jàpp dañ lay bett jàpp la ah yow bu njëkk ba ngay wax bu ñu la bettee jàpp la yóbbu la gendarmerie dañuy tekki say ndomb tekki say gàllaaj yëpp dañu nangu nga jël benn gàllaaj mhm. bu ñu la yóbboo garde pénitentiaire même boo ko yotee añ dañuy visite añ bi mhm. même mburu dañu mburu boo ko xottee dañ koy delloo lépp loo xam dañ ko dindi dañ koy delloo parce que léegi nag waa ji buy dem di jàkkaarloo juge bi day fekk yorul dara day fekk amul danger bi wàññeeku na daal non dafa yorul dara waaw moo tax ma ne ñi loolu moo tax nag les des fois juge yi mooy mooy loolu mooy seen sens mm. ñoom pénitence bi rek moo mën a def turu mm. moo mën nangu détenu bi ñëw ñu indil ko ay garab mu yóbbu ko léegi nag jamono bi prisonnier bi nekkee di xaar pour ndékki dem jàkkaarloog procureur foofu procureur dafa war taxaw ne gendarmerie wala police bu fi nekk si ah. waaw kenn bu fi kenn egsi seex mm-hmm. amul benn nit bu fi mën a nekk nga të jabar liggéey te amoo gàllaaj trop te muusoo da ngay jël say yëpp gis nga am na kër yoo xam ne li koy tas si kolu jinax yi lañ koy def kolu jinax yi waaw jeeg buy ci biir kër mm-hmm. moroomam bëgg ko fiy génne day ñëw sëriñ bi def ko loo xamante ne daf koy def fii ne day faj mbóot da koy jaxasee garab bi kii bu ko gisee garab mbóot rek lay gis waaye du fi yendu jëkkër da koy may mu dem rek technique laa lay wax technique bi ngay def ba egsi ci nit ki. mais li nga xamee noo xamee li. lu ko xamee. <laughs> man ci kër gi laa nekk. <laughs> si si ma xam <laughs> dama li lépp looy def pour egsi ci nit ki dama ko jàng léegi. Hmm. xale yii bu kenn teewoon léegi benn kenn benn kenn di jaay baar mu dem toog fa hmm. mu am 18 ans yoon mayu ma ma tere ko dem. Hmm. damay bañ a dem ci da baar bi fexe ku ma fa demal tëjal ma baar bi toj seen lu bon ñoo moom mu ñibbisi loolu laay def léegi bu buggee dugg ci benn kër dugg ma mu takk fa soxna mu nar fa takk soxna moom mu xam li ma xam daf may daw mm-hmm. dootul jël lu ma ko jox dootul déglu lu ma ko wax dafay ma am ku may envoyé mu yóbbul ma moom mu ñëw. mu ñëw bu loolu duggee mu ñëw. mu mu ñëw waaw. jeex na kon kon daal képp ku bëgg kaaraange bu wóor kon daal Blindé moom mi ngi fi moom. ñu ngi sant yàlla bu ko soxla ak euh, kun jàpp mu soxla ko tamit. xam nga ñun duñu visé ci wala keneen. Mhm. man jàmm ñëpp laa soxla dama soxla ñun ci doomu aadama lañu lañu lañu bëgguma kii tëjaate tëj kenn bëgguma kii ñu tëj ko mais bëgg naa ñëpp am jàmm. xam nga tëj mënut a ñàkk. Mhm. mais dama ne la booy tëjit jàppal ne même bu nit ki reyee nit am na mbokkam yoo xamante ne d'accord ñu mu tëdd kaso mhm. léegi nag capacité xam-xam laa lay wax dafa am kajoor nga dëkk xam nga mbéy dee mhm. tool yoo xam ku ko béy dee am na ci kajoor bi mhm. ñu tuddee ko mbéy dee lan moo fa nekk luñ fa suul mhm. dafa am lu ñu fay suul xëccoo yàgg na fi bu suulee fii kenn du fi bay wala fii tuddee ko mbéy dee moo nga diggante njóobeen ma yamar ak ndaam moor ak xàllangar bi ndaam ak njóobeen di xëccoo ay tool maa ngi leen di nuyu baax moo nga ca feneen dafa am loo xamante ne xam-xam la gis nga Cheikh ñi nga gis ñu daaj leen ci guy gii. Mhm. ñu liggéey leen fi am na ñoo xamante ne keroog bi waa ji daajee affaire bi mu ñibbee moom mi ko daaj dafa dee. Hmm? parce que kenn du ko daaj. am koo xamante ni sëriñ bi keroog bi mu liggéeyee bi liggéey bi mu pare rek la biiram commencé daw day dem dindi ji ko. Hmm. parce que waa ji kenn du ko daaj. am koo xamante ne keroog bi ko sëriñ bi laalee rek la taawu sëriñ bi dee wala doomam wala jabaram. moom mu commencé feebar day dim dindi ci liggéey bi loolu lii tax loolu mooy nit ki ci boppam mooy pare blende mooy pare loolu la pël yi wax memetaake mhm. loolu memetaake la memetaake lappetaake ak euh, lapp yaana bokkut mhm. waaw lappetaake mooy kenn du ko dóor mhm. léegi léegi dañuy gars yi naan ñoo ngay seere ndomb bi déedéet lappetaake loxo bi buy jóg du àgg bu ko teg yogg yogg waa ji day yëkkati loxo bi mu taxaw fii ba mu toog ci suuf lappetaake boo ne tëf waa ji àllaaxira nga jëm bu ko sa loxo dalee rek nga dee. même dangay sax beneen buñ ci boole naan dóor mu yàq tubay jéeg yooyu tamit boobu am boobu balaa balul. loolu kiy dóor moom mooy yàq tubéyam. ah kiy dóor ci boppam la. kiy dóor déggoo li wax loolu mooy lappetaaki. ok. déggoo léeg nga gis nit lappetaaki dafa am. Hmm. sàppetaaki am. Hmm. sàppetaaki mooy kenn du la tëkku. kenn du la tëkku. ku borom sàppetaaki boo ko tëkkoo rek àllaaxira nga jëm. même boo dee foofu ba tëkku di nga xam ba nit ñi dégg ne ah kii li muy wax jaaduwul rek mooy yàqu nga. Hmm. loolu mooy. sàppetaaki sàppetaaki. waaw sàppetaake am na lappetaake am na comme li ma wax ni memetaake am na loo xam kenn du ko laal léegi nag yooyu xam-xam la yoo xamante ne mooy tax kenn du la mën a liggéey leer na leer na jërëjëf euh, Thierno Moussa Sow yéen a ngi am émission bu neex ak Thierno Moussa Sow ñu nekk ci naaj bu tàng boo xam ne que tamit euh, man sama téléphone bi sax mi ngi génn ay température la may bindal fii man comprendre tuma de maa ngi dund lu tar téléphone bi kay xaar ma fay ko ah Baye Mass xoolal ma téléphone bi waay man nag euh, tubaab bi moo tax ñu ngi ñuy fontoo quoi téléphone yi ñuy jox mooy loolu ko euh, jërë ngeen jëf yi fi nekk tàng bi ku nu mën a ñaan ñaanal ñu ndax sonn nañ trop jaaxle nañ trop ci situation yu ni dund mais bindal bindal maire foofu bu dee bindal boppam paa tamit ba di neexul ki wax ci salle mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir numéro Thierno Moussa Sow 77 872 84 84 77.

WhatsApp sax indi na application bu ci baax tuuti pour nga avance audio yi mu gaaw déglu bi gaaw mais nit ki boo ko bëggee tegal li nga dund lépp dama sëy sama borom kër tas ma bàyyi ma fële après ma ñëw dund fii tumuranke dem fële après du ma yónnee dara ma yónnee xale yi nangam loolu boo ko bëggee defar sëriñ bu amul jot nag day metti tënk ko rek ne ko maa mi jafe-jafe ak lii ak lii soxla léegi lii mu tontu nga dolliwaat leneen wala nga woo ko yow mi nekk bitim réew nag nga ñëw Sénégal nga ñëw wala nga woo tappel normal wala nga dem ci stade Amadou Barry numéro Thierno Moussa Sow pël bu saf sàpp Thierno Moussa soon léegi damay ñëwaat ci beneen mbir boo xam na que day xawal laal euh, homme de tenue mais du moom kese mais xeet xeetu concours concours général bac BFM ENAM concours douane xeet yooyu pour admettre ci kaw foo xam dañuy laaj ay 1000 personnes lañuy lay jël ñu ci jël ay 4 personnes cinq yu mel noonu daal yu ñàng yooyu yooyu moom dafa jafe de wala. jërëjëf Cheikh lépp lu bokk ci wàllu xëcco mhm. dafa am garabam. dafa am garabam. mos nañu ànd ma woon la garabu rey doon. rey mooy garab gi doon nappaate gis naa ko buy lekk garab yi buy lekk garab yi euh, boo fa demee dinga nga fekk ñetti couleur garab. Mhm. ci yu bokkut. ci yu am na ci boo xamante ne boo ko xoolee meen rek ngay gis bu bëri. bu sottee ko waaye seex waaw da ngay dem gis koo xam ne pàkku matt la yor bu bëree bëri. Mhm. bu ci jaayee dix mille ci la yem. Mhm. ñu ñu yore ñetti comp. ñetti comp. ñu jaay ko trois cent mille wala cinq cent mille. différence bi mooy ni ngay wutee garab bi. ni ngay wutee garab différence bi mooy nga amoon ko ka ko jox yërëm la gërëm la jox la ko. barke nga mérito ko. Hmm. barke daa am. Hmm. Cheikh xëccoo saa yu amee rek. Hmm. am ku ñu xëcc mu toog. am ku ñu xëcc mu toog. gis nga gars yi xëccoo yëpp du ñu am liste bi concours gendarmerie buy am moo xam ñiy def MDL chef la. Mm-hmm. moo ñuy xam daf mujj garaat commande commandant la ñuy def yëpp bu ci ne mm-hmm. kenn ku ci ne am na lu la ci war nit ki nag seex bés bu mu juddoo dafa am solo ci moom bés bu mu njëkkee takk soxna dafa am solo ci moom mm-hmm. bés bi mu amee mbégte am mbooloo mu daje dafa am ci moom gis nga nit boo koy xëccal mbooloo dafa am nooy liggéeyee léegi nag hôpital régional bu Thiès di gis ñu daal di transférer malaat Dakar pourtant hôpital la parce que xëy na dara sottiwul foofu. Mhm. wàllu xam-xam da gis nit ki rek xam ne kii mun ngeen def. Mhm. ñi ngi sant yàlla ci li ñuy def képp koo xamante ne doy nañ la jëlal numéro bii. du Cheikh Taalif mooy wax. Eh. du Tektal mooy wax. Mhm. du télé bi koy teg moo man Thierno Moussa may wax. moom moo wax moo dem ci guy gi dindi liggéey waxuñu dara. defuñu dara. dindiwuñu liggéey kenn laaluñu kenn xasuñu kenn man maay dindi seeni liggéey. moom mooy dindi liggéey. waaw man maa ko dindi du ci góob dara. doo ci loolu mbégte man sama loxo yi weesu nañu fu ñuy laal liggéey mu koy jàpp. sama tur bi hmm. wallahi weesu na fu ciy sëriñ di ko fanaanoo di yeewu di xëy. di xëy loolu li may wax ñi ma xam-xam nañ ko. Hmm. man damay defaree. du ma da ngay sangu sangu bu bees wala bële na fenn fàtte ko fa bu la neexee dootoo sangoo teg yooyu man Cheikh mënu ma xëy ba jant soo laaluma garab. ah mënu ma wallaahi mënu ma ko. kon boo demee France nu man moo doon dem France bu sungu fi demul ma toog <laughs> man soxlu France dara. non am na waaye bu doon àndal ci di voyagé. Ah. suñ benn caméraman mu yor benn butéel <laughs> ñëw ci aéroport bi ñu nangu ko. <coughs> mu eh, ne <laughs> ci avion bi docteur Wade la docteur ak xarmat ma nga bu demul doo dem. damaa dem ci benn aéroport. Euh. moo yore 4 million mu dugal ko fi garab yi nekk. 4 millions. waaw. Mm-hmm. ma dugal ko ci mbuus bi nekk garab yi sama rakk bi ma àndaloon mu ne ma mu ne ma wax xaalis bi nga dugal si garab yi nekk ma ne ko xaalis bi ak garab yi lu gën mu ne ma 4 million yi gën garab yi ma ne ko baax na suñu demee ba wàcc ci réew mi ñuy tukki nga téye 4 millions yi ma téye garab yi. lu la 4 millions booy ñibbi nga def ci yëpp nga bàyyi ma def ci samay garab ñu daal di ne ku ñëw am ku laaj benn garab mu ne ko nangam. ñuy dajee ñuy dajal ñuy ba yàgg mu ne ma saay ma ne ko ah 4 millions yi bul fàtte ne moom rek nga fi amoon de <laughs> garab yi mu ne ah ma ne ko demul gis nga Cheikh mhm. garab moo ma gënal oto mhm. moo ma gënal kër moo ma gënal France moo ma gënal Allemagne moo ma gënal Amérique kenn mënu ma booleel ak garab bi dara yi ngay lekk nag yi moom maa ngi dem tey ah, man ah. garab lekk dama koy tànn de Cheikh <laughs> dafa garab yoo xam moom laa war a lekk mhm. waaw ma gisee rek dama koy lekk te bu ñuy ñibbi dañuy gis ma koy lekk. di koy lekk. seex. garab day tere torox. mais booy lekk bu nu sedd nag. day tere torox jërëjëf. day tere torox. waaw. tere def lu bon. def lu bon. day tere tumaranki sa xeet. Hmm. day tere soxor. day tere soxor. parce que day dalal xel bu sa xel dalee dootul soxor seex nit bu soxorut. Hmm. iñaanut. Hmm. fexelul kenn ku bon. lu bon yàlla sunu borom mën na ko dimbali. te it seex nit ñi yàlla moo leen suturaal mm-hmm. bu ñu mës jéem lenn luy xawwi seen sutura nit ñi yàlla moo leen fi indi te rang bi kenn xamul ci kan nga topp bon kenn jóge fi arrangé wul kenn na ñëpp dund wér am jàmm am njaboot mucc ñoog seen mbokk man loolu la xam macha allah mm-hmm. dégg ko kon rafetal leen seen xol te dégg naa ñu naan dama dégg ñu naan euh, borom yéene bu rafet mm. maanaam borom xal bu rafet lu ñaaw rek lay fanaan pour bu xëyee def ko mooy bu xëyee du ko man ndax lan dafa baax boroom xol bu bon lu rafet rek lay fanaanoo pour bu xëyee def ko bu xëyee du ko mën a def ndax lan dafa bon kon jéem leena a baax te dindi soxor ak iñaan te xam ne yàlla du reyal kenn am noonam mhm. yàlla du koo xam ne nga naan ko lii ma rek mën a du fi amee de lii laa bëgg mën a nii laa koy demee du ko ni dig ta muy def de mhm. da ngay calculer ne <clears throat> yàlla bu ko neexoon adduna mhm. bi yëpp maasé doon jullit yàlla bu ko neexoon ku réew du am bu ko neexoon ñëppay jub bu ko neexoon ku ñàkk du am nan bàyyi xel ne yàlla noppi nan la. Oh. tey bëgg lijjanti lépp nag ba far lëj ne dara jaru ko. Oh. fexeel yow bul lëj rek te bul oh. lëjal kon nan rafetal xol yi ak yéene yi bu baax a baax tey tegtal a ngi ni lu ndaw la mais xool ni ko àdduna bi consommé ba mel ne yor ran ba kaw noonu rafetal leen seen yéene te nangu dogalu yàlla. te ngeen abonné Tektal TV abonné nag bés furus bés kolos bi émission bu ñëw ngeen am ko ndax lan ñun de duñ wax sëriñ lu bon lu rafet ci sëriñ la ñu xool wax ko lu rafet ci keneen ñu wax ko yenn lu ñu xamul ñu maandu ci. loolu la loolu la ñu yéene. muy jàmm ak salaam. Thierno Moussa Sow. léegi nag euh, cat cat ci boppam maa la koy laaj dama bëgg xam ku mucc ci cat dama gis ñi ko am sax dañ koy xeeb bu ñëwee ci sëriñ bi pour ñoom waruñu fa joxe lu bari naan man cat rek laa fa doon faju mu may wax lii. cat moom du rek. du rek parce que wolof moo ne bu rëyul semmel. Mhm. te baatu semmal moom defe naa ne du baat bu gën. Mhm. bu rëyul semmal mooy day làggal Mm-hmm. wala mu semmal mooy sa lépp semm na sa lépp jeex na mm-hmm. nit ki yaa moom sa alal mm-hmm. yaa am sa soxla bu la neexee ki la doy dem fa lim la laaj boo ko mënee nga def ko boo ko mënul nga bàyyi ko ñun amuñu jot di wax kenn loo xamante ni duñ ko def yàlla nag amuñu amuñu capacité xam fu mu nekk ba ñu koy wax bul def wala defal mais li ñu jàng ci suñuy maam ñu donn ko te yàlla def ci barke moom la ñuy teg ci loxo nit ñi képp koo xamante ne li ñuy wax doy na la jëlal numéro bi. macha allah moo mënut a weesu nga jënd fetel bàyyi mburu bàyyi yàpp bàyyi lépp nga jënd fetel di xaar ko rey. cat la cat mënut weesu nga war a dem sax woy benn waay rek wax ko lu baax mu may la cinquante mille. nga dem wax nit lu bon di ko wax di ko wax ba mu lay yóbbu. de la plainte la plainte cat la cat mënut a weesu nga gis tegtal ci bi rek nga ne lan moo tax tegtal am. cheikh fu mu jóge génnewul sesti du journaliste warul am tegtal te Cheikh tegtal boobu mu ciy tegtal keneen baajam faju te mu ciy teg dara ay nit di ko bokk loolu cat la cat munta weesu nga dem jël sa cinquante mille war ko lekk nga dem di ko liggéeye ji nit di ko liggéeyee ji nit cinquante mille hmm. boo ci tegee dara nga daal di am cinquante mille mal bari na mën na laa xottali yére boo sol mën nga ci mën nga ci am ay kaamil mën nga ci jox lu suur taalibe yi man nga cee jox ay xale ñu lekk ba suur mën nga cee mën na lu bari de. léegi nag. Hmm. loolu lépp cat la mën na doon sax cat nag bu la jàppee da lay ay risque hmm. da lay jëlloo sa alal nga koy yàq da lay jëlloo sa lépp nga koy foyee yal nañu yàlla musal ci cat. yàlla musal garab bii dindi liggéey mooy dindi cat. mooy dindi ah, ah mais day ñëwaat wala du ñëwaat. non cat xam nga cat ak liggéey bokkut. Hmm. cat mun nga cee mucc abadan. ah mën na nekk. si si seex. Ah da ngay gis ne bu dëgg jamee nit dañ lay wax nga xoos ci sa bëñ tuuti. xoos ci sa bëñ tuuti. laal ci dëgg bi. laal léeg dangay gis mu dee. loolu may won moo lay won tooke bi ne ci gémmiñ su nit ñi ëbbale fajar. Mhm. da gis ne nit ñi fii senegal booy ëbbale dañuy teg baaraam ci sa gémmiñ mhm. parce que loolu dafa mel ne dañ ne dafa mel ne loo xamante ne benn gaas buy tasaaroo la. Mhm. ku mu dal rek cat jàpp la. cat catu baaraam la catu bët catu làmmiñ catu baaraam bi moo lay joxoñ catu làmmiñ bi moo lay xool catu euh, kii catu bët bi moo lay xool catu làmmiñ bi mooy wax ci yow cat nag bu la jàppee si yow lay ne mm-hmm. boo tegee sa bilan mu yàqu loo yaakaar mu tas loo xes wax mu yàqu boo xoolee seen njaboot sax bu subaa ñu commencé feebar cat mm-hmm. loolu mooy cat mais comme tey par exemple Sadio Mané bu dugaloon bii bu rëy reporter bi du du sénégalais sax quoi mm-hmm. mu ne oh bii de Sadio Mané c'est magnifique réel ko ba mu rëy foofu cat mën na ko fa duggoo la est-ce que Thiat euh, Sadio Mané ak fi mu jóge ba traversé ba dem foofu mbo ay mbokkam sàggan nañ ba Thiat di ko jàpp. mais damay laaj même même keneen ku dul Sadio Mané reporter boo xam ne la jàpp si yow sa bopp. Mhm. nga daal jékki-jékki nii. Ah, wax sa bopp rek ne wax sa bopp rek yoon jaar fa. yoon jaar fa Thiat moom fu mënut a jóge ci amul fu mënut a jóge mun na mun na jàpp saajo maane mun na jàpp keneen gis nga fi joueur bi football ba yàgg mu dee ci terrain bi. Mhm. yàlla na ci yàlla musal ñëpp amiin amiin gis nañu Sadio Mané ñu ngi Michael Balago yi ñoom Sadio Mané mhm. ñu nekk génération bi ñuy indil Coupe d'Afrique des Nations ñu am ci yaakaar lool mais Coupe d'Afrique mën nga ko assurer man euh, mënuma ko assurer mhm. Aliou mel ne kii mel na ñoom Zidane nga ko assurer déedéet mënoo ko jox kiis déedéet du question jox Aliou Cissé kiis équipe nationale bii su ma ko doon yor tey. képp koo xamante ne bokkoon nga ci sëriñ yi fa ñëwoon 92 ak léegi dañ lay dàq ba pare ma soog a nekk ci équipe bi. ah il faut nga yóbbu sëriñ suñ kat damay dàq ñëpp. léeg-léeg am ci joueur yoo xam ne li leen tere dugal rek mooy li ñu leen di jox lii téye làmb du téye téye match football. ah di ngeen ko de kon. yaa ngi dégg. Mhm. damay wax ne damay damay wax ne su boobaa. Mhm. kenn du fi indi dara kenn du fi defi dara man maay def lépp. ah équipe nationale ñu bàyyi la lépp billaahi maay def lépp. léegi nag lépp luñ ma war a jox. Hmm. nañ ko téye ba bés bi nga xamante ne gagné nañ bay ñibbisi. même sarax yëpp mën nga ko sax ay sarax li ma war a def yi mën naa ko defal sama bopp. ah. te it nag. waaw Aliou Cissé. Hmm. jege nga ko. boo góorgóorloo nga jëli ko. waxuma yow jege nga ko dama ne ko moom mbir mi jege nga ko trop. boo góorgóorloo nga jëf waxuma ko pour mën nga woo ma wala leneen. man ah? li may woo di may jëriñ mi ngi ci man. nekkul ci yow maam jege na fédération Sénégal si football bii. Mhm. bàyyi leen bii yi ngeen di teel dugal. di dem ba ci dernière du minute di jël ay tiro bi wax leen seen sëriñ yi ci match ngeen ngeen dee leen jël match nul ci départ. Ah, match nul ci départ ngeen di jël qualification bu difficile. génne def effort def lu loolu moo baax li ngeen di def ci qualification muy yomb moo da ngeen di mel ne ñuy yor Simon xaw ma nan di ko nal ba ngeen àgg fële mu jeex ñàkk ngeen ay ay ay match yu bëri ci tiro bi du woon match tiro bi da ngeen a waroon a jël premier ma kii ngeen jël bii jëli ko non man nag Sénégal foofu côté boobu naa ci wax de am na benn coupe d'Afrique bu fi jaaroon balaa mm. ñuy kii ma gis Bouba Ndour invité Gana Gueye ñu koy laaj ci tiro bii mu naan moom day fàtte ne penalti day am ma ne lii lii moom kii war naa wax lii penalti moo nu xañ lu ne da ngay seen ku naan Cristiano ay penal doo ay penalti moo nu xañ Coupe d'Afrique ak lu ne. nan góor-góorlu xam ne football. pour ñu génn ci loolu gars yi bañ a wax ne dafa jege ñu nekk ci. waaw. fédération assainissement euh, defal assainissement. mais mënoo def comme nga def jikko patriote quoi maanaam ñëw ak Tektal TV nga jël engagement ne coupe bi dina ñëw jël lépp ñu denc ko fenn. ñu ñu tas ko mu dem nga bañ laaj leen bu ko defee sëñ bu fi wax ñu ne yaa waxoon lii. loolu mosuma cee joxee dépasse sama kër gi moo ma gënal équipe nationale Sénégal bii. <laughs> man du ma koo xamante ne damay jël samay mbir di ko def pour mbégte. pour defuma ko. Uh-huh. man. Uh-huh. sama kër gi yemale wu ko dara. <laughs> dëkk ay ay yooyu. nekkuma ci bokkuma li li koy ko ci pël li nga wax ni wax ko ci pël. min wuram ngo mi waddani ngo ndiga hego ɓoroni min fof ala hay goto mbaɗnami lekki pour yo allah hokkumi jaam tan min mi wona musiba non non non équipe national ken nekko fo guir yallah aliou sisé dañ koy fay joueur dañ leen di fay fédération dañ leen di fay ministre bi dañ leen di fay man ma dem leen ñaanal bon de yàlla nañ leen éliminer loolu man duma ko def seex <laughs> eh, eh, kon yoruma xam-xam boo xam ne dama koy may ken kenn uh-huh. ma ko nit déedéet <laughs> déedéet may équipe nationale. <laughs> si <laughs> loolu loolu aw ma ngëm boobu sax ngeen seen carax yi ngeen di sol bu ngeen footballee pare jëndu leen ko kawasi jëndu leen ko. Ah, ndox mi jëndu leen ko ah bus bi fayu leen ko saboor bi fayu leen ko hôtel bi fayu leen ko waaw xool leen Sénégal jox na leen lépp nag góorgóorlu leen wane seen bopp daw doon patriote te gëm-gëm lu tax man nag wax dëgg yàlla ku am jom nag moo wax dëgg yàlla ci équipe nationale wàññi yaakaar ji nag jor na nag parce que yaakaar bu dëkk tas bañ yaakaar da koo gën ah bii nag moom balaa ñu mën di wax nañ tee coupe ba pare buñ téye coupe sax balaa ñuy feetu nan xaar une semaine bu ñu waxul ay forfait yooyu ñu soog xam ne coupe bi leew na quoi parce que li ñu ñàkk nag mi nga ëpp quoi mënuñu ah kon daal président Macky Sall woo ko dénk ko équipe bi keneen ku ci wala heure bii léegi ñu def test ku ci mënul dara léegi ñu d'accord nga nag ñu tegal lay condition maanaam li nga wax bu amee ñu jox la li nga wax bu amul ñu dugal la ndungu si maa dugal ndungu si ah <laughs> man man du ma kuy nguur dugal ndungu siin seen fii Cheikh man ndungu siin kenn du ma fa dugal. waaw léegi li nga wax moom day am kon dama ne la ñoom am na ñu ngi équipe kay nañ jël ay match amical. ñu jël match amical. waaw ne ma match bii dañ koy fubal bés nangam lañ koy fubal. Mhm. kenn du fa dem. mën na laa score bi ñu nañ ma laaj victoire. victoire waaw ñoom score loolu match moo koy joxe. te sax tolluwuma foo tolluwuma sax foo xamante ne damay tegu ci naan leen ñëw leen def ma lii hmm. ñoom ñoo ma soxla man soxlu ma leen soxlawu leen barke alxuraan soxla ma leen ñoom ñoo ma soxla li nga mën ci ñoom mën nga ko ci club tubaab yi yi xam nga club tubaab yi ñi ci jot a liggéey yëpp duñ nangoo sangu duñ nangoo sangu club tubaab yi par benn jour nga fa mën a am mais mun leen sanguloo club naar yi hmm. liggéey nañu ak ñoom amu ci ah. kenn ñoo koo xamante ne nangoo sangu dañuy compliquer affaire bi tellement ba yow da ngay mujj sax am problème. parce que ñoom. mais tubaab amoo beneen système boo mën a def budul sang man li ma leen di jox. Mhm. ay affaire la. ay affaire la. yaa ngi dégg. Mhm. mais li ma bëgg xamal mooy euh, bëgguma sax ñu focaliser wu ci sport de trop. mel ne dañoo dugg mel ne dañoo dugg ci ay at dañ cee waxoon door fay. système boo xam ne loolu biñ koy def da nga doon def a gis alaaji di ko def alaaji di ko def waaw. te nag maay magam. Mhm. te alhaji tey kii tey jii. Uh-huh. boo ko joxoon équipe nationale muy indil muy indil coupe d' Afrique des nations. barke alxuraan bu ñu ko joxoon. muy indil alaaji di leen wax ne am na benn député bu amoon équipe. boole woon naa leen de ak yeneen ak yeneen bu ma bëggee lim sax day kii Dóor Fay système boobu lu ma bàyyi door Fay bi. gars yi gars yi dañuy dóor tëdd ci xaalis bi. dañuy dóor ci xaalis képp ku fi dóor demi final. waaw ñaare da daw. Uh-huh. boo demee final ñu door la. ñu dóor la. am na fi bi équipe nationale bu ndaw bii di dem euh, coupe d' coupe du monde bi mu joon dem. waaw garab yi ñu doon liggéeyee ci benn club bi dirigeant club bi nekk équipe nationale bu ndaw dañ doon def garab yi leen alaaj jox ñu koy utiliser fi championnat ñu koy wàññi. moom la ñu demee coupe du monde man maa joxe ca Mauritanie ma ne alaaji gars yi sa garab la ñuy footballé mu ne ma lu tax ma ne ko xoolal match nangam te buñ ko réussir nga tàkk. digg ah! man maa na. xam naa parce que ñun ñoo leen di jox garab yi. ñoom ndeke ñoom liñ leen di jox fii ñuy fubal benn équipe championnat muy dóori rek ndeke dañuy wàññi garab yi léegi ñu dem ba yàgg bu ñu amee match championnat garab yi leen di jox duñ ko utiliser ñu dem utiliser ko qualification dem coupe du monde di def lu bëri ñu nand leen. waaw waaw am na benn match boo xam ne après alaaji yow ah, ah. ñu ñu ñu xaddi dem dem suñu yoon. ay hmm? triant lañ. di ngeen ko de dirigeant équipe nationale yii. ay vrai triant lañ. am na ci am na ci. non man ñi ma ci xam ñëpp ay triant lañ. Oh. xaw ma si koo xam ne dafa baax dañuy triandé moo tax gars yi sëriñ yi di xeex ak ñoom. dañuy jël benn sëriñ di la nax mën nga wàññi garabu jàmbur yi di ci def coupe du monde. dégg ngeen ko teg loolu dafa mën nekk. man moo tax ku ma ci boole kenn ngay ñàngal man sama niveau dépasse na équipe nationale man ay Real Madrid laay waxal ñoom ñoom presse laa ko seqal man ak kii Allemagne FC Africa ak yooyu ñun ci club yooyu. la nekk maa ngi yow nag duñ juboo ndax man supporteru Barça la. Barça. waaw Barça nag moom saa yi mooy loolu quoi. non man de supporter Barça na seen xorom. waaw baax na. Euh, Messi kiiyeetul Messi. waaw Cristiano naqaril na foofu. waaw na Barça mooy loolu. waaw baax na jërëjëf ancien supporter Barça la de. Euh, di nga ñëw jaar naa Manchester jaar naa Barça jaar naa Inter jaar naa fu ne. nañ continuer ci sunu émission bàyyi équipe yi dañuy yàqal sunu émission. Euh, kon daal sport moom ku ñëw bëgg bu soobee yàlla. ci kattanu yàlla sunu borom. Thierno Moussa Sow. Mhm. léegi nag li ñu bëgg a ñëw ci wàllum jinne ak rab. Mhm. rab liñ koy jiiñ bëri na mhm. am na jigéen ñu amul jëkkër ñu jiñ ko rab mhm. am na ñu amul liggéey ñu jiñ mhm. ko rab am na ñu accidenté ñu jiñ ko rab am na ñu daanu ñu jiñ ko rab am na seen sëy tas jiñ ko rab am na ñu am doom ñu jiñ ko rab rab noo def ak moom ak jinne ak jommalaatee njuumaak xeet boobu daal jërëjëf Cheikh ci àll lañ nekk waaw ligne bi nga nekk boo ko xoolee benn dëkk bu mag nekkul ci diggante bi fii nga nekk guy yi dafa mel ne yaa doon yaa ko doon sàkket gis nga ko. Mm-hmm. ni mu mel benn ñaar ñett ñeent. dafa dégg daaj day guy rek comprendre ne grand la ko. mais fii du tey rek laa fi ñëw. Mm-hmm. ñëw naa fi deux ci guddi. fanaan naa fi. man nag waxuma ay. jë boo fanaan ci àll di nga jot a gént wala. yëkkati ay nuyoo parce que fanaan pour nelaw dama fi fanaan pour liggéey. Mm-hmm. Cheikh. nit ñi duñ fi inventé lu fi amut. Uh-huh. duñ fi inventé lu fi amut. rab dafa am jinne dafa am man nag nekkuma koo xamante ne damay wax ne damay waxtaan ak jinne ki rab loolu du ma ci sori. mais li ma lay wax mooy xam naa nu mu mën a dëkkee fii samay nag duñu tiit samay doom nelaw sama sàmm ne fi di fi fanaana sàmm du jommi. xam naa loo xamante ne bu sàmm keneen keneen tiitee fële bu dawee ñëw fii ma xettali ko. jigéen nag. rab bu koy teree sëy moom war na ko mën a xam mhm. saa yooyu julli tisbaar jam bopp buy metti jëm ngoon bu timis jotee mu deñ yaa xam ne da ngay fanaanoo yaram bu diis boo yeewoo yaram bu diis boobu dalay jàpp mhm. saa yooyu gént di sëy nekkul rab rek moo lay géntloo di sëy nit ku bu masoore sëyiwul mën na gént muy sëy mën na nekk mhm. loolu moo tax léegi euh, kon ku am jabar nekk bitim réew wala jabar ji nekk bitim réew kooku ñoon jun gént di sëy wala nit ki amul jabar sax day gént di sëy mais ñaari nit bariwul lu muy gént di sëy ak jabaram Hmm, dama ne la comme par da nga ne comme euh, ku. nit kuy génte di sëy loolu rab rek defu ko rab rek defu ko léegi nag dafa am ñaar koo xam bu jëlee ëmb ba pare hmm. day gént gis mbaax ëmb bi daal yàqu rab a koy def koo xamante ne day jékki-jékki gént di sëy hmm. te saa yu ko géntee jamono yooyu mu gis póot boo xamante ne póot bi day am ay ba dépassé normal am kooku rab a koy def jigéen bii nga xamante ne bu jëkkëram duggee ci néeg rek xolam bon ba mu bëggee rey boppam bu dul loxo moo ci jaar rab da koy def ku góor ki nga xamante ne saa yu demee ba xelam nekk ci ci ci ci sëy rek day sëyee loxom wala mu gën dem taxalu ci feneen kooku rab moo koy def ba nga xam ne moom bëggul takk soxna mënul yor soxna di ngeen ci gis ñu bëri mm. am na ñoo xam juróom fukki at lañ am mosu waaw ñooñu moom wéradi la loolu du rab ah, wéradi la am na ñoo xamante ne juróom fukki at am nañ ko ci réew mii ak réew yi ñu dendal mosuñoo dégg alxayri te saa yu ñu commencé dégg alxayri feebar loolu rab moo koy def saa yoo leen joxee garabu rab sax xam nga dafa am cuuraay boo xamante ne boo duggee léegi am na koo xamante ne xam naa ne waxuma la mm-hmm. <laughs> boo suuroo garab bi léegi ah. da koy suura rek xëppoo ndox mu tàng moom la ñuy wax ci kër gi xale yi xam ne moom la ñuy wax test dof boo boo mu garab boo boo ko defee léegi bu dee da am rab booy suuroo booy génn doo mën a yëkkati sa bopp da ngay raam ñëw tëdd benn place léegi nag mën nga tëdd soo ba jant soo ngay wax say soxla mais yaram bi ni muy diisee bu demee suba mu deñ rab dootu la daaneel moom la ñuy wax test dof ñun test dof barke rasul yaa ngi dégg loolu dañ koy def pour wan la ne. bu dee ci biir famille bi la nii. test of réussir bi ak euh, ñaata parfois xam nga loolu defuñu ko pour client dama la moom la ñuy def. comme ni xale yi ni ñuy nekk nii léeg-léeg dañuy toog di waxtaan ci famille bi. Ah. ñu naan yow da nga daa amee rab da nga amee rab léegi jëlal cuuraay bi nga suuroo ah, def test def quoi. waaw léegi dañ lay wax ne boo ko suuroo comme yow da nga ko def léegi. Hmm. ñëw sa yaram bi diis munoo jóg munoo liggéey suba gannaaw suba même seet sax dootoo ko man ba trois jours mu soog la bàyyi ba yow da nga am rab. ok. léegi nag xale yi ñoo koy tuddee ku ci tukki ñëw war nga ko defaat wala. non loolu bu ñu koy def mooy pour wan la ne lii am na lu muy apporté. am na lu muy apporté comprendre yaa ngi dégg léegi nag. dafay ah, gën a xale bi tamit day gën a xale bi tamit. mu xam ne li muy jàng am na yoon bu ci ne. am na yoon bu ci nekk njëriñ. léegi nag xale bu fekkente ne day day day liggéey ci wàllu xam-xam. Hmm. léeg-léeg dootul xamante dara. Hmm. moom moo def tey gisaane bu rëy bi samedi def ko dimanche def ko lundi mardi mu ñëw tiim gisaane bi mu ne la mënuma ko nettali hmm. nga ne ko loo tax mu ne la comprendre ma nga ne ko jaaraatal ci chiffres yi mu jaar ci yëpp mu ne la mais mënu ma wax dara. nga ne ko léegi bàyyi ko mu bàyyi ko nga ne ko demal def nangama nangam mu ñëwaat mu ne la maa ngi maa ngi en forme. mu def liggéey yooyu wàllu xam-xam moo koy def. Mhm. léegi nag Cheikh. sëriñ boo xamante ne. Mhm. dañ ko jekk ba yàqul ko. waaw ci xuloo lay nekk ci mer lay nekk waaye du dootul teg saagam day wëreelu di tukki rek. dootul nekk ci place sëriñ bu ñu liggéey maanaam sama mbokk yi nga xamante dañuy liggéey. mooy sëriñ si wàcc D2 quoi. am na sëriñ si wàcc deuxième division. sëriñ <laughs> su ma doon invité ñu bari ñoo xam gisatuma leen kenn gisatu. non mën na fekk ne dañoo wàcc ñu deuxième division sax. dañoo nekk dañoo nekk ci beneen wax oh, leen tamit dafa am. gis nga tey. ku yaakaar ne sëriñu 2020 2021 nga ci nga yem de. affaire bi liggéey boo liggéey ba war ko jox sa njaboot ñu aw nga koy ñàkk sàmm ko tée ko loxo. waaw moo mm. teg ko fu wóor nga man ci dem fu wóor ku ci mais bu ku ci profité te tegoo ci yoon da ngay wàcc. ku ci dégg parce que man ma leen téye. waaw Cheikh. Mhm. ñooñu yal na leen yàlla may jàmm rek. mën na nekk ni dañoo nekk ci beneen liggéey. Mhm. man moom comme li may wax rek. Euh, sëriñ sëpp ak ñi dul sëriñ. mais léegi bu njëkk da nga doon tànk jër léegi da ngaa lewet. Euh, man duma mos a lewet. Ah. looy gën a màgg nag ngay gën a bari yërmande. Ah, ok mais lewet bi yëpp su jotee tàng rek day tàng. waaw li ma doon def ba léegi dama koy def. waaye nag boo waxee ni. yaa ba léegi client di la fonto nga ne delloo ko xaalisam ak yëpp. ah waaw xam nga nit koo xamante ne dafa yaakaar ne lim lay jox moom moo la yor. te moom lim lay liggéeyloo sax mënu ko fay. te boo duggee bayaax foo taxaw xale bu ndaw boo laaj li ko jege foofu yëpp Thierno Moussa Sow ñu war la kër. waa bayaax ñoom ñoo ma fonk. Mhm. ñoom fonk biñ ma fonk. Euh, aw ma seen pay parce que nag ñoom ñoo moom Thierno Moussa keneen soog a moom leneen. Mm. waa Bayax Thierno Moussa moo ko moom. Mm. Cheikh. Euh, nañu tey président fekk na la fi Youssou Ndour fekk na la fi ku ne fekk na la fi. ku ne fekk na fi nañ fii mu da nga ko miiné ba mu dëgër tee. nañ nañu toj xam-xam. waaw waaw fii sama dëkk la. nañu nañu toj xam-xam ma xool. borom Bayax. Euh, Thierno Moussa Sow wàllum góor nag faiblesse sexuelle góor bu gaaw yegg ku mënatul dara ku lim yor tuuti yom na nee nga doo ko faj moo ko ko juddwaale mais wàllum sëy daal jërëjëf Cheikh bu fekkente ne nit ki dafa am ñetti façon télé sëy hmm. kii buy waaj a sëy rek lay yëg ne nekkatul góor hmm. kii benn yoon rek lay sëy dootul mën a sëywaat parce que mën naa ne semaine bi hmm. kii day sëy ba pare yaramam bi di métti du mënal boppam dara kii day dem bay saa yu jóge eh, jublu ci sëy day gis ne day xelli ndox mu bëri kii day sëy bés bu ne du mën a am doom bon kii mënul am doom kii du génne maniw maniw bi mu amul moom la ñàkk kii am na maniw mais maniw bi li mu soxla amu ko pour mu may doom kii nag bu bëggee sëy rek day tële kenn ku ci ne dafa am garab boo xam dañ lay jox bu mu yokk maniw ba pare wérloo sa maniw ñun ñooy natt ci kaas ñu jox la nga naan suba nga gis ne sa maniw bi day yokk da ngay mel ni ku nekk vidange day dem di di génn di xal la ba jeex tàkk nga gis mu muy génn doon maniw bu weex tal mm. ñu yokkal la garab nga am li nga soxla lii dañ lay jox garab nga jël ko ku weddi li ñu wax ñëwal ku soxla bu ñàggee léegi sama kër ma defaral la garab mm-hmm. léegi nga yóbbu ko jël ko ci sama kanam boolaa ngaa tëdd nga xam ne liñ la jox du drogue du leneen te nag nekkul garab boo xam boo ko jëlul samedi rek dimanche ko taxaw. ah du pour du dépendant. non non ñun depand ñu dañuy traité lu mu lu leer la ñuy def. tool am na sëriñ soo xam dañuy jël garab yoo xam ne dañuy rax ci garab yi tubaab quoi. <clears throat> ki jël ko rek yaa mel na gaynde ëllëg nga mel na muus quoi. xam nga seex loolu boo ko defee tamit nit ñi dofuñu. te it loolu boo ko doo ko confier xale yu ndaw yu toll nii. loo mm-hmm. leen gas looy garab ba pare di leen di def lay kii boo ko defee bu subaa ñu di ber seen daara wuti sunguf. Mm-hmm. daa di ci dëbb garab def ci. <laughs> parce que li ñuy nekk ndaw yëpp bu ñu xamee ne yow mii amoo li ñu lay respecté ñu wuti xaalis. bàyyi la fi mais da ngay yor loo xam ne say mbokk dañ lay dox sëriñ mu boo ci gis bu ci nit jël ci wàllum ngóora bopp bi metti dënn bi tëf tëfi rax na loolu d'accord ba ba xam man mënu ma xam garab bu ñu rax. Hmm. ndax doo rax kat. mësuma rax garab. mënu ma xam fa dëgg yàlla boo garee euh, raxee garab yan effet secondaire ah, lay def. kon li nga wax xam ko xam ko rek danger la quoi. waaw mais xam ko rek am na lu tax nga xam ko. maa ngi koy nuyu moom mbokk moom di ko wax ne rek. Hmm. loolu mu wax mën na nekk dëgg. Hmm. waaye man mus wallaahi musuma rax garab. billaahi musu xaw ma nu ñuy raxee garab. mais kuy gaaw a yegg nag loo ko mënal. moo tax ñu jox la garab yi. naam avis lay wala dañ lay jox no xam nga avis moom. wala day comme mosoo dund ba dund jeex mënoo xam avis nan lay deme mm. ci li nga fekk rek nga mën a wax. Mm. ñun ci li ñu fekk ci la ñuy wax dama ne nit ñi jël garab yi xam nañ ko li tax boo fi amee dix kilos du am quinze jours nit ñi xam nañ ko mi amuñ benn garab bu ñuy am am dix jours fi amul. te amul benn garab boo xamante ne diw moo ñu boole jëliwu ko fi. Mm. ñu ngi ciy sant yàlla nit ñi nag mënoo faj ñëpp. il faut am ñoo xam ne du ñu wér. loolu mooy dëgg. mi loolu yàlla jaglewu ko kenn. macha allah mhm. bu dul yëg bànneexu sëy na. non loolu moom. bu kanamam day nàcc xaw ma si dara. xaw ma si waaw déedéet. Mm. parce que dafa am yoo xamante ne ñun. bi ñuy ko jiiñee rab nag. non loolu rab ko def ñun bi ñuy jàng garab am yoo xam ne ko. Mm. xam nga tamit njàngum garab moom du dabe. du dabe da nga koy téye ba pare continuer ci mais garab du dabe. Mm. gis nga xale yi heure bu ma pareeg ñoom dootuñu mën a jàngati garab. lu leen rëcc ci man ñàkk nañ ko ah billaahi ñoom Mouhamed ñii mm-hmm. Seydina ñii luñ ñàkk ci man buñ delloo seeni waajur tamit duñ ko amaat parce que yoon bi ma leen di jaaral dañuy taayalaat dëpp mm-hmm. parce que foofu mooy yoon bi nga xamante ne moom moo gën a gaaw falaa leen di jaarale ah. lu leen rëcc fi a ni mënatuñoo gis garab yu jógee beneen réew di ci jàngaat mënut a nekk mm-hmm. garab da ngay sa njàng day maaseeg sa ndaw balaa ngaa màgg nga mokkal comme ku dali woon alxuraan ba mokkal foo ko fekk rek bu wàccee kaamil bu mu bokk rek mën na ca fekk mën na ca bokk. Mm. même bu fekkee ñu commencé mën na dabe. léegi jigéen boo xam ne que nag euh, rafet na mais amul bayra te bëgg bayra xeetu jigéen ñi nekk ci série yi ak ñi bëgg seen série yi gën a jëm kanam ak jigéen ñi nga xam ne que dañuy défilé euh, bëgg ci am ay promotion àgg ci kaw daal xeetu bayra. Cheikh généralisel bayra nga bañ ko féetalee jigéen ak njaay ak njaay yëpp sax. dafa am loo xamante ni pour ku bëgg sëy la jigéen ñi góor ñi jigéen ñi leen gën a bëgg tegtal de bàyyi leen xel lool de waaw waaye leen tegtal gaaw ci tegtal bi ngeen abonné Cheikh xool na nombre bi mais ñi abonné ci jigéen a ëpp fuuf te tegtal TV ñun euh, góor ñee ko gën a bëgg nag ko bàyyi leen xel lool góor ñi ngi seetaan te abonné wul waaw bu fekkente ne da ngay jël bayra bayra da ngay wut bi ngay sangoo bi ngay sangoo ak nooy utiliser bayra dafa am comme soo dafa soxla bayra bu ko laalee tey rek samedi ak dimanche lundi ak mardi yëpp dafa am bayra dafa am bayra man ma soxla bayra boo xam ne dafa am fu ma koy utiliser mhm. mbooloo mii ma jëm mhm. bayra mbooloo mii rek laa bëgg bu tasee pare comme par exemple man man tey mhm. man am naa loo xam bu ma bëggee génn su ma neexee ma def ko même fu ñu dëkkoon ci kër gi ma génnee ma yéem la hmm? billaahi léegi comme par exemple ku amoon benn boîte de nuit comme Kabana ay nuy Pierre Issar Clétine Issar ak yu mel bu bëggoon chaque jour muy fees dell ki nit mën nga ci dara. na ma fay. Ah, ah du sa xarit la. waaw na ma fay. ah ma wala nga gis. ah nit ñëw bu baax na nañu dem foofu ñu def tegtal ma ak yow. Ah, ah. mu fay ma direct mu wax la ñaata la dagg kero. ñaata la dagg bés boobu ñaata la dagg bii ñaata nit ñoo fa ñëw. man ma def li may def bu bés bi delsee ñu taxawaat ci buntu bi maa moom ñu xam ñaata la am. ak nga aaraat ko tamit problème dafa am xeex dafa am. xulóom déggoo li ma la wax. Ah. loolu lépp daal nañu commencé lii ba pare. barke Rasulullah kaba naa lay dem defi émission. day na la woo naa la woo moom mu ñëw mu fay ma. ma ne ko lii nga may fay. mu ah. ne la lii moo fiy dugg par nombre. bu mu changé programme. léegi li nga ko defal fu mu yem moom date bi kañ lay déedéet loolu du jeex mu. mën na jeex de. bu la xasee fay ah day mën na jeex de mën mën mën nañ ko limiter li ñuy liggéey mën nañ ko jox maam bu jeexee jeex na. ah day wis wala yu xam. non nañ dem baagi ci rek. yaa dem nañ dem baagi ci rek. barke rasulaay léegi euh, joueur bu neexul entraîneur bi nag bëgg di dem titulaire ci force nag même bu desee aay nag. loolu de Cheikh mënu ma si dara. bu fekkente ne aayul moom. Mhm. li gën rek mu bañ fa nekk. waaye ku aayul moom mais ku aayul xam nga ku xas bay sol moyen bi dugg ci terrain bi mën nga dara mais ñeneen ñi dàq la ko daal. li ma dàq mooy dama la boole woon ak sama rakk muy def sa marque. Mhm. mu koy def nga man ma nangul ne gis nga mu dóor ay match yu bëri. waaw boole woon naa ko feeg mooy nuyu Gaston Mbengue ak ne. xaar rek. Mhm. ay am na yu bëri yoo xamante ne. Mhm. mën nga ko def léegi ci football. mais football nag li tax mu difficile mooy. dirigeant yi am na bu ñu àndee seen butéel dañuy wax ne foog ñu laal ko. ah ñoom dañuy laal joueur seen butéel bi ñu indi. Ah. yow da ngay nekk dirigeant indi sa butéel ne équipe bi da koy laal kii indi butéelam ne équipe bi da koy laal kii indi butéelam. loolu dëgër bopp boobu. problème yaa ngay démarrer. mi ngi foofu. Hmm. te nit ki la ne boo dóoree fay ma mu ne la lii lépp bu ko laal boo ko laalee doo dóor wàccoo na ak yow. wàccoo ñun noonu la ñuy def ñun dañ lay wax ne bu laal bu fekkente ne sa marque la mun nañ ko wut ci jàkk yi lañ koy wut. Hmm. bu ñu jëmee jum julli ji fanaanal ko fu ñu jullee fajar ñu jël ko indi ko jox la ko nga roof ci say dàll. ci dàll yi. Euh, maa ngi nuyu waa Kaolack. di di nuyu waa Xandaalu maa ngi nuyu Birane Mané. parce que man pour ne am nañ jamono yoo xamante ne. jamono yoo xam équipe yi nekk pays yëpp. yéen a leen yor dama jublu woon ci fubal. Uh-huh. ñu ciy def lu bari boo gisee ma cité Birane Mané xam naa ne baay na fubal léegi kenn dootu ko wax sama rak la. Uh-huh. moo nekkoon diisu Xandaalu. dama ko doon wax euh, dama ko doon wax ne boo yeewoo. Mhm. dañuy dañ bu ñu mësaa def def euh, kii ba pare dama koy wax ne Birane léegi yow yaay dugal jamono yooyu maay fàttali waa ji remplaçant la koy def bu heure bi dama mujj di dem stade toog xaar ñu dugal ko ma ñibbi. Mhm. barki Cheikhul Khadim bon wax la ne mbir mi nekkul ci xam nañ ko. mën nañ ko mais yow sa xam-xam préparé préparé woon ngeen ci léegi comme biir a ngeen raison vaar bi xewaat léegi nag ba yàqul dara liggéey. Euh, yow xanaa xamoon ne match da nga ko war a préparé bitu équipe bi dafa war a door trois 1 da nga war a fexe moom mu am. bi orso bii orso yow nga am orso bu amee deux orso nga am benn nga def ko trois am nga dem benn bi nga waroon a utiliser nga dugal ko match bi jeex Cheikh. Ah, loolu dañ koy liggéey. nanta la équipe dafa la war a dóor équipe yow match bu trois heures jotee da ngay xam match bi nan lay demee. nga xam nan lay jeexee léegi nag loolu moo tax des fois ñuy préparer match bu yàqu. match bu yàqu. dafa baax léeg-léeg da ngay dugg foo xam bu dee nawetaan la mu toj moo la moo la arrangé bu dee lamb mu toj la moo la mu toj moo la arrangé parce que bu sottee rek lu baax ci yow léegi waxtu beeru dab bu lay bu dul tàggatoo balaa boobu cigarette bàyyi nga wax prix euh, yamba da nga koy faj jërëjëf da nga koy dindi cheikh tux gens euh, ñu fàttale nit ñi rek ne garabu ndoxu siti bi ngeen doon jël si mi ngi fi mi ngi fi képp koo xam ne da nga am hémorroïde buy naaj wala hémorroïde bu nekk si biir hmm. woon ñu numéro bi bu dee li wax doy na la asma képp koo xam da nga am asthme ñëwal ñu ba ñu faj la xam ngeen ci dara yéen a ngi doon jëli garab yi hmm. ñi ngi leen di gis ngeen di koy jël si fu ne hmm. ah, képp koo xamante ne da ngay tux cigarette wala sangra woo ñu ci numéro yi wala ngay jël yamba wala ngay gens ay eh, hépatite beeg yooyu nga ci non non non mënu ma ko faj waaw garab yooyu yooyu maîtrise suñ ko parce que turu tubaab rek sax lañ ko xam xamuñu nu mu tudd ci olof waaw colopathie ah, moom ñun am nañ sax ñu ñuy jege ñu ko feebar mënuñu leen faj ci docteur Sara Ngom laa leen di yóbbu Mbambilor dérapano nag mën nga ci dara dérapano am nañu xale yu ko yor mais dafa am ñoo suñuy xale lañ suñuy doom lañ dafa am garab bu ñu leen jox bi ñu xamee ne mi ngi leen di dal ñuy miir école dañ leen jox garab yi ñu ngi université fi ne nii di jàng kiis nag mën nga ci dara xiis bàyyi nañ ko leen yéen dong daara yi nañ leen ko bàyyi yéen dong daara yi. ngeen ah, jigéen bu bëgg a sëy sëy bu gaaw. loolu dafa mel ne waxoon nañ ci. Ah, Cheikh waaw garab yu ñu yor képp ku sa aaju nar ta faju yàlla nañu yàlla musal ci nga. jël si set nag yéen a ngi ciy saf sap. loolu boo paree léegi bu la neexee woo xale yi nga jox leen tur ñu seetal la nga xool. téléphone waaw bu la neex sax nga def WhatsApp. ñu seetal la nga xam ne ñun li ñuy def yëpp niñ ko daan defee rek. dégg ngeen ko nag juge ak magistrat yi nee na ngeen moytu Thierno Moussa soo ko wax nee na Afrique la nekk te nit ñi capable lan tout kon lépp a ngi fi daal man nag maa ngi gërëm sant ak gërëm koy gërëm ñu tàggatoo. sénégalais yeeg ñi ñuy seetaan gërëm la ak équipe bi nga àndal. sant Serigne Abdou Lahat di ñaanal sëñ Cheikh Khady Ba mu yàgg fi. di nuyu Cheikh Mouhamadul Kala Mbacke Nooray ni di yàlla fi yàgg te wér mook taalibeem yëpp barke Serigne Touba barke borom daaru di nuyu sama maam xaalifa général Guitare la. Mm. maam temps yi moom xam naa ne star temps yi maa ngi lay siiwal de war nga def dara de. Ah. te bañ. Ah. waaw xam nga wax kenn du xam kan ah. koy nuyu di nuyu. porte parole la kër bi Cheikh yow yow xaritu ñëpp nga. Hmm. njëriñu réew mi nga. doon nit koo xam ne da ngay dem ci kenn di liggéeyloog moom ba pare di ko woo ci suuf di ko santaas ak leba ki ñaan doo def loolu mm-hmm. yow saa yow pare ci liggéey jeex nga képp mm-hmm. lépp looy def émission nit loo ciy def looy sentir la maag yow def nañu ay at yow mm-hmm. Soña Sène Assane Sène Caba euh, ay royukaay ngeen ci liggéey ay royukaay ngeen ci liggéey parce que nit ñu dal ngeen nit ñu tey ngeen nit ñu gore ngeen nit ñu am diine ngeen nit ñoo xam ne kenn mënu leen xoqatal kenn mënu leen tiital hmm. te daray kenn jaralu leen wax lu dul dëgg te barke Serigne Abdoulaat lii may wax ni lu ma gëm la macha allah yal na yàlla barkal sa liggéey jërëjëf fal na ñëpp ñuy seetaan euh, maa ngi gërëm sama xarit AA 10 AA 10 Sadio Mané tekki sa 10 bi man maa ko nangu. Mbappé baal ba mu jël coupe d'Afrique ba ñëw non non tekki 10 bi kii tamit tekk Neymar dindi 10 bi keneen kuy sol 10 Modric dindi 10 bi ah, ñu jox diis bi AA 10 moo Amir Abo ñoo ngi lay siyaar ca Dubaay ñu ngi ñëwee prince bi ah euh, sa xarit sa lépp euh, Bugatti oto bi nu mu tudd Bugatti ah Bugatti laay dawal temps yi bàyyi naa ay ran sax yooyu yëpp xewi nan Amir Abo ah ku yan ku fi sol 10 yi nga xam ne 10 10 na ci yow tekki leen seen numéro 10 yi ci mbedd bëggatun ko ko sol budul AA. 10 Amir Abo ca Dubaay nuyu nañ ko kontaan ci moom bu baax a baax ndax xolom bu rafet Kab Fall kontaan nañ ci bu baax a baax ndax xolom bu rafet eh, ak yéenam bu rafet ak baaxaayam Kab Fall François tout fu ne leen koy làmb eh, daj ko bu baax a baax Ousseynou Ly Allemagne nga xam ne que moom day wax dëgg gi noppi du ci amul amul caaxaan ak mère Fatmata Ndiaye Ousseynou Ly Allemagne Dieynaba Diabaté Allemagne Mami d'enfant France Sayer Fall Espagne Sayer moom tamit yow yëngutu ci carte gi mën nga ci dara euro million déedéet ah ok non yooyu kon képp koo xam ne que tamit match yeeg yooyu comme géngeen ay code la quoi seer moom gérée la taalibe la ak ñeneen nga xam ne que ñi ngi may wax ci yooyu yëpp équipe bii mooy gagné ak yooyu mooy lool euh, gërëm na leen bu baax a baax ñiy seetaan teg tal di gërëm tamit sëñ Abdou samat Mbacké champs bi di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér te yàlla gën koo jàppale ndax baaxaayam ak bëgg Sëriñ Tuubaa sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makaarim al Axlaaq di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ko wér sëñ galas moom sëñ jili moom sëñ fàllu ak sëñ abdulaat mbàkke moom sëñ jili moom sëñ fàllu ak sëñ seexuna ak sëñ saaliw ñoom ñëpp ziar nañ leen ñaanal leen ngeen yàgg fi loolu te ànd ko wér sëñ xaadim mbàkke moom sëñ maam moor sam moom sëñ fàllu ak sëñ galas ak faadal ñëpp nuyu nañ leen gërëm leen euh, Tektal TV ngeen doon ànd ak émission Thierno Moussa Sow yoon bu mujj ci biir émission bi

Euh, ci Tektal TV ngeen abonné ci Tektal TV bés bu rus bés couleur bi émission bu ñëw ngeen am ko xewal dikk loraange dëkk écouté nga biir àndala moom docteur Wade bu Casamance nekk ci euh, Baye Massamba Diop nekk ci euh, Baye Massamba Diop bu Derkele docteur bu Ganga Wade Baye Massamba Diop yam mi bi mi ak Yande Samba Sadi bu Samba Soxna Jaara ah damay tib sa Soxna Jaara la waaw Soxna Jaara Wade Soxna Jaara a ñu monsieur Samba ah monsieur Samba ca Maris monsieur Samba Moussa Samba Moussa Samba Moussa Samba papay Sadibou Samba ak Yande Samba nuyu nañ leen gërëm leen bu baax a baax a baax jaajëfal tamit Petit Sow ak mère Khady Ndiaye ci Thiès ak mameeg rakk yeeg ñëpp ah xarmat soxna may Diop mam Thierno Badiane waaw taximan VIP temps yi nag war ngeen ma yokk ñaan bëgg na ma taqale ko ak luyaas ak yëpp sama oto dafa paan ba pare loyage yi tamit mi ngi gën a seer bëgg na maa ngeen test yi ci man ma doon milliardaire def leen loolu. war a nekk milliardaire. a a am sa télé bopp bu rëy. bu gën a rëy entreprise waaw yàlla na nga weesu France 24 weesu yëpp. weesu yëpp barke sëñ te lépp na nga fekk njëriñ bi ak ñu fekk njëriñ jëriñu jëriñ xewal dëkk loraange dakk